waaw euh, njàngat bi moom mooy déjà wane ni li nga xamante ni dafay concerner nomination équipe bu bees bu Sénat bi dafay jox encore une fois firnde ci sénégalais yu bëri yu doon wax ni élection yi seen wuñ mu nekk ay élection libre et transparente hmm. parce que on ne peut pas concevoir aussi à quelques mois des élections comme ni ko CEDEAO waxee nga changer une équipe tegaat beneen équipe bu bees loolu sax mën nañ ko jàppee ni fraude la keroog maa ngi fiy développé nii fraude c'est une fraude par rapport au principe wala par rapport ak processus bi nga xam ne daf ñu war a yóbbu ci élection présidentielle. sauf que xam naa fi ñu war a ja jëfandu après mooy Doudou Ndir mandaam jeex na woon. mais li day faatu wax dafa am solo. Mhm. ba ñu ko ba ko sénégalais di kaas pour mu jógee fa ba léegi jëlewuñu ko fa mu jox mu joxe une décision bu favorable à ñi la ñu jëlee jëlee ko fa. ban xalaat waaw xam nga xam nga ban xalaat la sénégalais war a mën a xalaat ci loolu. Mouhamed man je pense que sénégalais yi. ba fi ñu toll dañu desee comprendre Macky Sall le président Macky Sall Macky ci ci ci ni philosophiquement parlant ci ni muy politiqué bëggul ko ko défier gis nga boo xoolee bi ñu fi wax affaire troisième mandat bi Sori Kaba génnee am lam ca wax dañ ko dàq ci élection présidentielle yi bi mu choisir candidat am ña ko défier da leen a dàq xaarul sax dafa génne décret dàq leen ñoom ñëpp moom noonu lay doxee gis nga lii am mënuñu jàpp lu dul ni dafa sanctionné Doudou Ndour te Doudou Ndour il n'est pas n'importe qui c'est un magistrat li mu def du pression moo tax mu def mu def ko mais xam-xam la def li mu def lu mu xam la du fara tax mu def ko du pression bu tegu ci kaw moo tax mu def loolu donc nag question bi nga xamante ni tey moom la sénégalais yépp di posé wu. Hmm. à quelques mois des élections là nous on tax ñu. gaaw ton équipe bi sànni te pourtant en 2021. mille vingt question est ce que. en est ce que ce gouvernement veut veut que les. l'élection présidentielle. en soit tenue en 2021, l'opposition bi dajale ko ne nañ fi jëlee Doudou Ndir Ndir le président bagn ba tey mu rendre une décision bo xamante bu ci yéxon touti Sénat ci boppam dina jël fils de parrainage jox ko ki nga xamante moy Ousmane Sonko parce que ci processus boobu la ñu nekkoon par rapport ak injonction bi nga xamante ni Sénat defoon na ko. Hmm. man nag je pense que gouvernement bi pare nañ pour dem élection. man pare nañ pour dem élection mais pour dem ci élection yi il faut supprimer les menaces menaces nag mooy les candidats potentiels il faut les barrer la route man loolu laa loolu mooy sama njàngat. léegi nag en commençant par que tey ñu ngi wax parce que boo xoolee tey CDAO renvoi bi mu def dalay leen mbir yi mi ngi gën a dëgër ci côté Ousmane Sonko léegi nag ñi nga xamante ni dañoo féere ci guddi gi waruñu nelaw parce que bukki bi ma bëgg a maat Ousmane Sonko mën na leen màtt ci parrainage. mais Serigne c'est cela qui m'intrigue en fait. Mhm. xam nga yàgg nga ko wax. Ah. c'est-à-dire lu mooy su ma waxalee yàlla rek ko boo leen déggalee boo dégg boo leen déggee ñeneen ñi wax nañ ci ngeen wax ma lu dul tey Bougane Gueye bi nga xam ne def na la une de plusieurs euh, quotidiens bi bi bi ñaawlu affaire bi est-ce que cette position là véritablement mi ngi ci yoonu xool lii rëq-rëq ci processus bi moo moo moo moo moo opposé son son veto waaw euh, ndax ñu ngi jëm ci ay élection yu nga wala élection bu nga xamante ni ni mu tàmbalee dalul xel mais on a vu une opposition quand même complètement fond en fait oui léegi boo xamante ne ni waxuñu dégguñu leen euh, kaasuñu man daal xaw ma la dama ne Mouhamed constitutionnellement parlant démocratiquement parlant <coughs> opposition bi dañoo war a taxaw xeex parce que mooy li ma wax menace bi nga xamante parce que gars yi dañuy dem élection mais dañuy supprimer toutes les menaces lépp lu leen nar a gàllankoor ci élection yi dañ lay jël tegee la nële léegi nag bu ñu tolloo fii l'opposition dans son ensemble ñoo war a taxaw xeex comme ni ko constitution bi organisé comme ni les principes démocratiques organisé parce que ñu ngi jëm fu gën a garaaw fii sax garaawul mais parrainage yi am na foo xam nag buñ fa toll tolloo day nekk peine perdue keroog maa ngi wax ni opposition bi la ñu waroon a njëkkee moom lañ nar a mujjee parce que dañuy wax ni élection et c' est vrai loolu nangu naa ko. bon je pense que xam naa bëgguñu ñu éliminer leen parrainage moo. xaaral ma ñëw gis nga ci nekk bëggul porter combat. <laughs> mën na nekk ay calcul mais gis nga ah, problème mais c'est loolu laa xam. gis nga dafa am loo xamante ni euh. dafa am dafa évoluer <coughs> gis nga bu njëkk ba élection pour nga sàcc ko lu yomboon la lu yomboon la parce que moyens yi surtout logistique bi nga xamante ni nguur gi daf ko daan utiliser ak moyens yam daan utiliser boobu opposition bi amu ko woon mais léegi affaire yi dafa évoluer ba opposition bi dafa am logistique bi am moyens yi mais léegi xam nga fan la système bi toll mooy désorienter l'administration wala le processus bi nga xam moo ñuy yóbbale ci élection yi en sa faveur te foofu la nguur gi nekk mooy désorienter processus bi wala désorienter administration bi ba mu favorable leen te tey boo xoolee li xew ci diggante daaf ci direction générale des élections ak na da ngay y a l'exécutif derrière Il y a l'exécutif derrière parce que tey problème un nga xam entre ces trois administrations là problème la boo xamante ne réglé wu na bu mais ñun ñoo bëgg a ut difficulté parce que la, décision de Sabassi Faye na tout toute cette problématique là donc si bu ñu demee ba toll ci problème intégration ci liste électorale ak yooyu loolu dama ne c'est dilatoire donc nag tey opposition bi dafa am loo xamante ni nous avons encore une fois une responsabilité lu ko dinañ leen lem ba jekk tege leen la réalité des choses man ni élection mais pour dem élection il faut que ñu supprimer lépp loo menace la potentialité par rapport ak candidat yi nga xam war nañ taxaw kanam li ngay wax pourtant récemment autorité ci droit agrégé yu génn am lu ñaawlu si ni mi di par rapport à état de droit par rapport ak démocratie fii la ñu ñun ñëpp léegi nag yii ñu commencé gis daf jox daf jox ñu ngi wax ci constituer li nga équipe bu euh, Sénat bi surtout des acteurs des politiques alors que la loi voudrait que des gens yu nga amuñu fenn fi nga nañ ci parti politique mais ce qu'on est en train de vivre là c'est dangereux pour le pays c'est dangereux Légui et l'opposition dans tout ça bougan alerté on depuis ay jamono par rapport à élection yi ñu jëm ne ñi seen objectif bo moytuwul tout tek ay prox ndollu ba décourager lo nit ñi pour ay élection yenen yo xamanteni ni mën nañ ko mën nañ ko repousser mais man dal moi gis moy gars gaay nekk ci logique ou supprimer li nga xamanteni que moy menace yi taxaw seen kanam ah. Moy candidat potentiel yi nga xamanteni mën nañ leen ci ñu gagné élection présidentielle yi. moo waral dilatoire bi yi nga xamante ni aujourd'hui am na am na am na ci. ci très bien Bamba sa lecture. <coughs> waaw Mohamed euh, li man de li ma si ñàggat mooy dama dama am benn seetlu bu ma def mooy ak euh, le président Macky Sall ay décret wu président bi comme ku am ay pion di ko damier parce que moom la. Euh, suñu constitution bi may pouvoir de décret mais moom comme ku nekk si kuy damier te bu ñu nee damier mooy yenn saa nga damier kuttu sa adversaire yenn saa nga damier homme mais dama gis ne daal moom ni muy tegee décret bi fii bu ko arrangé mu dugal kële kii bu ko arrangé mu génne kii roof kële fële kee mën na ko mise en attente xaaral ma ñëw le temps que ma fexe ba am benn prof ndol pour nga génn. et eh, si kaw loolu ay nomination président Macky Sall si li nga xamante mo jëm ci wàllum gouvernement bi ak tout ce qui administration sénégalaise je me suis toujours posé des questions ba au awma ay réponse lan mo tax ki jóge fi ñu yóbbu ko feulé wala ki nekkone fi ñu jël ko fi yóbbu ko feulé parfois est-ce que réellement parce que day xol intérêt askan bi parce que Macky lu mën def def def aussi askan bi moko ko tax a toog fii ah, parce que mom ñun la war a liggéeyal mais parfois damay comme j'ai comme l'impression damay gis ne mom intérêt bopam lay gëna a gis que ak li koy gën a dooleel ak li koy gën a may li nga xam ay avantage que askan bi parce que jël na fi si ay ministres yoo xamante ne sénégalais ba li comprendre ñu lu tax décret mu change ko andi keneen te joxul benn explication malgré que n'a bu neexee su ko neexee bañ a joxe explication mais ñun aussi am nañ droit de poser ay questions. le ministre Matalba bu nekkee si ministère des sports sénégalais yëpp nangu woon ne il faisait des résultats mu xëy xëy xëy yëkkati ko fa sans explication malgré que am na droit. andi fa Yankoba Jatara xëy xëy xëy Yankoba jógewaat fa ñu andi fa li nga xamante ne mooy Lat Diop gis nañ aussi li nga